sa démb xam sa tey xam sa démb xam xam sa démb xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jógee. déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru senegal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey xam sa démb xam sa tey di waxtaanee barab bu am solo ci réew mi bala booba mi ngi ci Dakar di place de l'indépendance boo demee ba ci biir xoolu Dakar ci quartier boobu ñu naan plateau ca digg réewum lébu ca pays boo demee am na fa barab bopp dafa ubbeeku yaa lool ku ñaw mu dalal barab bopp man ko tiim lii di ay bank ña ko tiim lii di ay butigu njaay ña ko tiim lii di ay bureau yu ni liggéeyee ña ko tiim lii di ay otel ak i kër yu nit yi dëkkee may leen ma tey ma nettali leen barab booba ak jaar-jaaram ak ya fa xew barab booba nga xam ne bis bu ne nit teg fa tànkam teg fa tànkam te du njortu mukk taarixu barab booba ak jaar-jaar ak xew-xew yafa am waaye ku ma may nopp tey da nga dégg da nga dégg place de l'indépendance li mu dund place de l'indépendance mu ngi mel ne barab bi ñu tuddee place de la nation ñu koy wax obélisque ca Colobane ñaari barab yooya at mu ne 4 awril bu jotee bu nuy màggal moom ginu moomaat sunu bopp ci tubaab ñaari barab yooyu lañ koy defee yenn saay yi bu fekkente ne danoo boole gone réew mi ñi nga xam ne ñoo takk der ak ñu ko takkut ñëpp ànd di maaj dañ koy defee ca place de la nation waaye yenn saay réew mi day soxla boppam day soxla ñuy wéet tëju militaire yi ñëw taxaw wane seeni ngànnaay mu nekk nag ci fulla ak fayda defile booba nag bu wàññee ba wàññiku dañ koy defee fii ñu tuddee place de l'indépendance barab boobu nag di place de l'indépendance ne ci xoolu Dakar buñ koy xool dafa bokk ci màndarga yi gën a rëy ci réew mii di réewum Sénégal ak république senegal Sénégal lu tax ndax lu toll ci téeméeri at tuddut woon place de l'indépendance waaye mi ngi tuddoon place Protet tur woowu ñi ngi ko ko dàkkantale woon ci ndajem lii nu tuddee woon conseil privé amoon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai ci atum 1863 ban koy ngénte keroog ka jiite ngénte la mooy Pinet-Laprade mi nga xam ne ca jamono yooya moo doon gouverneur u Sénégal bi tubaab bi nootoon xam sa démb xam sa tey ana ku ñu tuddee woon place booba bara booba ñu tuddee woon ko kii di Auguste Léon Protet nga xam ne nekkoon na commandant jiite soldaarus tubaab si nga xam ne ci ay gaal la ni ne ci lépp luy géej gu ne ci Afrique soowu jant nekkoon na it commandant ba gën a kowe fii ci ndar gi di Île de Gorée kon nag noona ca la woon ci turu France lii di presqu'île du Cap-Vert noot ko muy mëddaale nag suufu si Ndakaaru ci 1857 kooka di Auguste Léon Protet moom nekk na sax gouverneuru Sénégal ba 1859 ginnaaw loolu sax ca la dem ca soowu jant réewum soowu jant ca booru Makka nekk fa administrateur colonial ca xeex yooyu bu doon xeex ca la wàccee bakkanam ñàkk ko ca Chine ci atum 1862. boo demee ca place boobu ñu tuddee woon place proté am na fa barab boo xam ne dañ ko tuddee monument aux morts maanaam muy barab bu nu yet jagleel ko ñi ñàkkoon seen bakkan ci jamono ji ñu nekkee ci Afrique soow jant bi tubaab bi moomoon barab booba ki ko xalaatoon mooy Blaise Diagne booba député wu Sénégal ci assemblée nationale u France ana lu yëkkati barab booba mooy sargal képp koo xam ne soldaaru Afrique nga boo xam ne ca guerre bu njëkk ba amoon ca diggante France ak Allemagne di guerre bu àdduna bépp sa deret tuuru na fa nga ñàkk fa sa bakkan xam sa démb xam sa tey ci ginnaaw gi lañ war a fàttali ne barab booba du monument aux morts de la l'AOF nga xam ne ñi euh, seen bakkan rotoon ci Afrique soowu jant tubaab bi la ña ngi ko ubbiwoon ci juróom-ñetti fani février ci atum 1929 booba am na ko ko fekkee te jiite ko mooy ministre bi yoroon colonie ci turu France di André Maginot waaye ginnaaw 1945 bi ñaareelu guerre bi jeexee dan barab bi day boole it di màggalaale doomi Afrique yi dem xeexi woon te ñàkk seen bakkan ci ñaareelu guerru àdduna bi di seconde guerre mondiale. waxtaane barab bi nga xam ne tuddoon na place Protet te nu gën ko xamee tey ci turu place de l'indépendance. bu nu fàtte ne ca jamono booba tubaab bi ne fi la ko waroon la ko waroon ku bëggoon sa xol féex fa ngay dem la ko waroon ku bëggoon a dajeeg nit fa ngay dem waaye am na barab bu rëy boo xam ne moo ko doon mandargaal barab booba ma nga woon ca biir quartier plateau ñu tuddee ko kafe Protet barab booba du woon xeetu restaurant diggante 1920 ba 1930 képp ku am lu am fulla fa ngay joxe ndaje ca jamono ji fi tubaab bi ne booba ana ñu fa doon daje xanaa fonctionnaire yi ana ñu fa doon daje xanaa homme d'affaires yi ana ñu fa doon daje xanaa politiciens yi ñu mel ne Ngalandu juuf kon mën nañoo jàpp ne ci barab boobu nga xam ne mooy place Protet di place de l'indépendance tey amoon na beneen barab bu ñu tuddee woon café du palais képp ku daan jël gaal wàcc Dakar wala bateau. gaalu saxaar nga wàcc boo wàccee rek xamoon nga barab booba ndax dañuy fàttali ne place de l'indépendance dafa lang ak pooru ndakaaru njaay kon ku daan wàcc da nga wàcc foofu amoon na nag lun fa tegoon lu mag loo xam ne musique lañ fa daan def ci place Protet orchestre yu mag yi fa lañ daan ñëw dimanche bu nu añee ba noppi ku bëgg a féexal soxol ñëw ku yëg wàcc sa morom yéeg waaye bi nga xamee ne nag fukki at a des ci indépendance di ati 1950 place ba ca la am théâtre bu rëy ba di théâtre du palais ca lañ ko fa sàkk mu ubbi ay buntam nag bunt yi dëgmal place proté place proté boobu dafa am xew-xew politique yu mag yu fa amoon te mu jar a fàttali bu leen fàtte ne ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août 1958 ca la ku makka Wal Jooja Njaay waxee woon waxtu discours bu rëy ba keroog général de Gaulle ba mu ñëwee xoolam neexut booba ma ngay wër Afrique ndax booba dañoo waroon na def référendum bu mag ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci septembre waroon a wax nag ba xam Afrique day moom boppam déet ay keroog ba mu ne jàn taxaw yaakaaroo ak waa Sénégal ñu bind seeni pancarte ku ne yëkkati góor ndaw mag syndicaliste jigéen ñëpp taxaw ña ko danoo bëgg a moom suñu bopp mu mer ma nga naan keroog. yéen ñii laa bëgg a waxal yéen yor pancarte yi di ko yëkkati benn baat dong laa leen di wax te mooy bii bu ngeen bëggee indépendance 28 septembre ngeen jël ko. barab boobu nag ñu tuddee woon place proté bu nu fàtte ne keroog fukki fan ak juróom-ñeent jëm ñaar fukki fan août 1960 bi nga xamee ne Mali tuddee woon ko république Soudan ñu tuddee woon ko sudan Mali ak Sénégal xajjaloo nañ. ne àndatunu doon mennum réew ah keroog nag fédération ba bam tasee fale Sénégal yi yëpp daje looloo tax nag kenn warta jaaxle ci turam wu wees yees wi tur wi 4 avril 1961 lañ ko ko tuddee ana nuñ ko ko tuddee baro bu moom sa bopp ana luñ ko tuddee place de l'indépendance fekk nag muy anniversaire bu njëkk bi Sénégal di fëggee dënnam di wane ne moom moom boppam kenn du dogal ci turam noonu la tuddee place de l'indépendance waaye boo fa demee la koy mandargaal ana ku ko fa teg kooko mooy Maître Valdiodio Ndiaye Maître Valdiodio Ndiaye ca fitwa moom mi nekkoon ministre de l'intérieur ci gouvernement wu Sénégal bu ngeen xoolee bu baax boo ñëwee ba ci place de l'indépendance siggil nga xool sa ndeyjoor bu fekkente ne palais de la wan gannaaw danga gis préfecture Dakar da nga gis ministère des affaires étrangères waaye boo xoolee ci sa càmmooñ da nga gis chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar waaye bul fàtte ne ministère des affaires étrangères booba moo nekkoon palais de justice bu njëkk ba kon barab bu amee noonu solo ci son taarix barab boo xam ne lu xew lu rëy lu ne dana fa xew diggante 2000 ak 2014 lu ne xew na fi ndaje mu mag bu ne ba tey jii politicien bu am lu la naqari boo fa àggut doo am lu la neex ndax dangay ngay bëgg a wane ne am nga indépendance kon place de l'indépendance lañ doon waxtaanee tey xam sa démb xam sa tey. xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may. ànd ci ak archive nationale du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut